waaw salaamaaleykum Mbaw maa ngi lay nuyu waa Sénégal di am mbégte nag tey moom xam naa ne wax ji du bari ndax nous sommes toujours en fête tey ñu ngi félicité gaynde yi parce que maintenant on est champion d'Afrique coupe bu bees stade bu bees réalisation yu bees ñuy wax merci son excellence le président Macky Sall si lu rafet li mu def ndax Sénégal chaîne la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kon bu jëlee bijou bu mel nii àdduna si yëpp di ko rafetlu mu jël bés bi jël statue bi tuddee ko sunu maam le président Abdoulaye Wade loolu sag la ndam la ñu ngi ko si félicité

gagné ko pour une première fois mu nekkoon rêve xam nga Sénégal pays de sport la Sénégal dëkku sport la dañu bëgg sport donc euh, bi coupe bi ñëwee xool yëpp a kontaan ñëpp bég ñu béggee ko donc fête boobu nag mooy continuer ba léegi. Dakar Arena xanaa di ko waaj ak yéen di ko waaj ak sénégalais yi. mais dañu bëgg ci liggéey man maa invité liggéey ci Dakar Arena. mais mbaw mbaw bés boobu bés boobu seen bés la ndax man lu ma doon rek presse bi bokk daf ci bokk sénégalais yi bokk ci. kon man bés bu may organiser du bésu Pape Diouf comme li may faral di wax man lépp lu ma song. sénégalais yi ñoo koy daan kon bés boobu bésu Sénégal la. la fête continue parce que depuis euh, qu'on a vraiment qu'on est champion d'Afrique la fête continue euh, et que fête boobu tey moom moo indi stade bu bees bi nga xamante ni son excellence président Macky Sall defar na ko euh, pour vraiment euh, Sénégal mu jël ko tuddee ko suñu maam suñu papa Abdoulaye Wade Yirim Fara Wade Ndiack loolu muy wane ni que ils ont montré le bon exemple Sénégal dëkku jàmm la. Sénégal chaîne la ñun ñëpp benn lañu àdduna nag rafetlu ko vraiment euh, ñu am stade boo xamante ni digne de son kon tey lii sant yàlla la daal vraiment. fan si awma ma lu dul yéen one love one love one love Dakar Arena le juin jaajëf.